nee na gotit am nañ ko fukki weet ak weer ak ñaar yoo xamante ni ñoo bokk benn néeg nee na xam naa ci moom loo xamante ni kenn xamu nee na xam na ci manit loo xamante ni kenn xamu ko nee na kon nag léegi nee na sëñ Seex nee na li lay sant nee na man day maa ngi fi nee na maa ngi sa gannaaw nee na lépp loo nekk du ma ko yëgee nee na jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu déglu sëñ Moodu seede digganteeg Serigne Saliou Touré lu mu ma wax mu ne ma moom sëriñ Sidi mii sëñ Abdoulaat ak sëñ Saliou dañoo yëkkati tur woo xam ne sëriñ Touba secret boo xam ne ñi ko am amut ci kaw suuf nee nañ jox ko sëñ Sidi nee na sëñ Sidi ñëw fekk ma ci nii ma ko waxee ni ma sëñ bi day lii am loolu sëñ Saliou Touré ko ni ma it ànd na nu ñu yëkkati xasida su ma yëkkatee mu ne ma nijaay yow neexoo baat waaw kon moom lii mu wax lii mu wax fii def ko santaat nañu bu baax xam na ne la sa waajuroo waxoon andi ko fii nii sëñ Saliou Touré dina leen yeggale ci yàlla ñun de bi muy ñëw ci Bamba ji lañu judd 1888 doom yi mag la nu waaye Cheikh Abdoulaye la ma ko waxoon def na ko ñun day dëkk cees yeggale na la ci mooy tijaan murit xaadir ku mën a doon tey juddoo Thiès ndax wax na benn bés nii maa ngi ñaan yomal xiyaam bu ñu demoon ba yomal xiyaam ñu taxaw ñu ne waa Thiès gépp nan maase dem feneen man Saliou ma demal leen fa te yéen waa Thiès nga dem àjjana jërëjëf kàddu njabootu sëñ Saliou Touré gépp la te ki ne ci bopp bi di sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba mi topp sa kanam kàddu la nag yoo xam ni nim mel ci xol yi du mën a génne noonu ci làmmiñ yi ngir fi bis bi toll ci ñun waaye liñ lay njëkk a feeñalal nga xam ni loolu sëriñ bee ko wax sëñ Cheikh moo ko wax ci kàddu boppam nee na bis bis bii day diis na gann ci xoli taalibe yëpp waaye sa teewaay bii day seral na lu bare bare bare ndax sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad moo ñëw ci bis bi fii ci kër sëñ Saliou ñun ñëpp ñu jàkkaarloog sa jëmm ji nii xam ne yaa loolu seral na xol lool xanaa ko xamut ndax nun xam nañ ni lépp sëriñ Abdou Lahad nga ñëwaat toog ñii di sa ñëpp laaj kon yaay démb yaay tey Mbàkke ñu ngi lay seereel ni nii ko sëñ Modou Ngom waxe ci kàddu sëñ Cheikh ture ñoo ngi lay sant lool te it sunu yaakaar dolleeku na noo ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool ndax am nañ ci yow yaakaar sëriñ Cheikh itam mu ngi wax ni mu ngi lay jébbal cant goo xam ne cantu njabootu sëñ Saliou Touré gépp la mu jëm ci sëñ Mountakha ndax defal nañu loo xam ne day sedd na xol lool wan nañu ni lam nu daan wax démb ak bërki démb ci digganteem ak sëñ Saliou Touré firndeel na ko bu baax a baax ci jëf yu bari yu mënta lim lii ay kàddu yu cant rek la yoo xam ni lii nu ci jote génne sax xanaa lu yàlla dogal la mu mën a génn waaye fi xol yi toll ci ci ci ci ci tiis ak xol bu sedd ndax ñaar yooyu moo yemb tey ci sunu sunu sunu xol yi kiis yu mooy kii nga xam ni rek moom mooy lu kenn xamut ci ñun ki nga xam ni sunu ndimbalul adduna la ak àllaaxira ki nga xam ni mënuñu koo fay ki nga xam ni amul wutaat ci kaw suuf ci sunu xol yi bu nu xëyee gisatuñ ko loolu aw tiis la waaye boo bàyyi ko tuubaa nag di sëñ tuubaa nga xam ni yaa nekkoon démb yaa nekk tey